déjà daf ci am mooy côté man côté justice sax laay wax. Mhm. mooy dossier dossier boo xam dafa waroon dem délit. Mhm. Euh, ñu yóbbu ko ñu c'est déjà loolu rek problème la. Mhm. moom laa la wax sànq ci instrumentalité bi ñuy instrumentalité justice sénégalaise bi. mooy parce que kilifa activiste la. def na ay erreur mais ñoom xooluñu yoon. ñoom dañuy xool naka la mën a écraser parce que ki ko benn benn benn la boo xamante ni élément bu am doole ils en profitent c'est très simple léegi nag moo tax ma ni nit boo nekkee ci xeex nga nekkee ci xare da nga xam fooy taxaw yàlla nag mooy nattu jaam yàlla rek a xam bu ñu toppee justice sénégalaise bi fii duñ fi jóg ci loo xamante du dëgg boo demee ci kaso bi di nga ko fekk ay nit yu baree bari yoo xamante ni nit moo leen di bañ rek jiñ leen viol ñuy wax leer nam leerul am na amul ñii ci kaso bi toog di xaar nekk institution ñu fàtte leen fa ñu toog ay cinq xeex erreur am si ñu fàtte leen ci kaso bi. ay cambriolage nga maanaam comme li ñu waxal euh, le ki doon filmer euh, kilifa nga xam dañ euh, dafa tëb tëb kër jàmbu doon sàcc ñu jàpp ko. moom ñaar penam ñaata la six mois la xaw ma ñaata am na si ñoo xam ne cinq ans lañ fi tëdd xam naa am naa ci ay xarit. ay ñoom cuun sama xarit la ba léegi dañ ko fàtte ci jël mi ngi bëgg def huit ans moo gën a yàgg cent si cest à yooyu xam nga moo tax man des fois dama bëgg mu nekk rek parce que benn nit la bu siiw rek ci moom la yam di wax di wax rek mhm. des fois wax ne ne Imam Ndaw wala libéré diw nga am koo xamante ne mi si kaso bi ba mu ñëwee ba jël dossier yi la ko jël teg ko fàtte ko beneen ñëw mu teg ci kawam beneen ñëw mu tegaat ci kawam beneen ñëw ba ñu fàtte ko ba kooku ñu affecté ko keneen ñëwaat ñu fàtte ko si kaso bi mhm. donc loolu loolu ay àq la yoo xam ne ci ñun sénégalais yi lay delluwaat mhm. léegi nag kaaw kilifa c'est très simple dañ ñun ñëpp dañu war a jóg. maa ngi koy man maa ngi koy maa ñaax waa Y'en a marre di profiter ci émission bi wax la nañ jóg pour kilifa parce que dañu fàtte dañ naan euh, euh, Simon dafa feebar mais kilifa il est malade. moom il est malade ba pare xam nañu Macky Sall jaay doole la def parce que bu ñu bu ñu justice rek affaire bi du dem du kii lay yem flagrant délit ñetti fan ngay tëdd ci kaso bi ñu dem juger la bu yàgg ba yàgg ay

parce que ku bëgg jàmm Macky Sall nga wax arrêté nga def transparence ci élection yi nga xam ni pare nga ci instant yi nii da nga war a tàggatoo da nga war a tàggatoo tàggatoo mooy deux ans moo la dese yow bokkatoo nga taxaw def élection te fexe ba respecté affaire teg ko ci yoon kilifa diine Macky Sall bi Marème Faye Sall di nii <laughs> ah ci loolu la nekk de xool association islamique yëpp Marème Faye Sall jox na leen ay oto ay 4x4 ah imam yu baree bari leen jox leen xaalis imam yu baree ñoo xam ni presque ñu ci bari kilifa këru kilifa diine ñoo des mi ngi dugal xaalis bu dul di jàppante di lijjë te loolu dafa doy waar te xamal dara war la ko loolu yaakaar ni rek que ñun taalibe yi dañuy topp sëriñ si su lijjante Macky Sall jote mhm. te loolu ndax nañ seen bopp mhm. ndax nañ seen bopp Euh, euh, chamboulement euh, euh, au niveau de la magistrature mhm. euh, euh, au niveau du conseil supérieur de la magistrature mhm. gis nañ ne président de la république def na ay changement yu mhm. am solo ki nga xam ne mooy le procureur Bassirou Gueye nga xam ne si juróom-ñaari at yi nga xam ne nekk na ko si bopp les institutions nekk na procureur boo xam ne il a été super médiatisé dossier yu chaud yëpp si loxoom la la la tàbbi woon tey jii ñu remplacé ko teg si kii nga xam ne mooy euh, le procureur euh, Amidou Diouf mhm. est-ce que jàppoon ne fu mu toll nii ak chamboulement yi nga xam ne euh, intervenir na au sein de cette institution lii di justice nga xam ne à chaque fois di ngeen koy ŋaañee dina am dina nooyi tuuti en fait waaw dinañ si am dara dinañ si xam dara mhm. parce que ñun déjà dañuy dugal ay plainte contre Gaston Mbengue si propos yi mu wax nii mhm. nee nañ taal famille Diaz léegi loolu propos yooyu noonu ñun ci loolu la ñuy xamee ndax moom pro déjà yaa ma gën a xam ñii moom xam nga ni c'est des gens yoo xam Macky Sall la ñuy liggéeyal quoi. non pas Abdou Karim il faut aussi euh, respecter leur intégrité. man intégrité attends. ñii c'est des euh, mu ngi présidence. ok Anna Téliko. mu ngi Tamba. ok <laughs> ça ne dit rien. mais pourquoi nga wala. non attends non ça ne xoolal ça kon amul problème ça ne dit mais non man je veux pas aussi que. ñu mhm. jàpp ne ku ñu affecté hors de Dakar rek. du hors de Dakar du hors de Dakar rek c'est-à-dire non c'est-à-dire mais. région yi aussi dañoo soxla te aussi ku mel ni comme Téliko. merci beaucoup mais région yi soxla nañ ku mel ni Bassirou Gueye soxla nañ ku mel ni Diouf wala Diallo je sais pas nu mu sant moom. Euh, Amady Diouf. Amady waaw lépp soxla wuñ ko lu tax Téliko rek mooy dem ci région yi soxla nañ ko ñun xam nañu yëpp ci Sénégal la. on loolu du problème mais dañu wax ni maanaam ni région yi ni Dakar soxlaa euh, euh, Bassirou Gueye noonu la Tamba soxlaa Bassirou Gueye ni président président soxlaa Bassirou Gueye noonu la Tamba soxlaa Bassirou Gueye Kédougou tamit il est victime de son engagement de son engagement mais ay magistrat ñoo génn fii di manifester di casse di wax di démissionner gis nga ko ne Sénégal justice bi indépendantul loolu du ñun ñoo ko wax seen wax la ñoom du seen i wax da ñun te wax naa la ko fi ne Macky Sall wax na ni moom am moo teg tànkam kon ñun na gis na ma xam nga ñu ngi toog nga gis ay ay ay privilège di am ñu gis ay ay ay ay euh, euh, maanaam mhm. pouvoir judiciaire bi maanaam justice bi ci boppam mhm. seen kilifa nekk ministre de la justice te ministre de la justice kilifa mooy Macky Sall mhm. ñu mën a buum di mën a teggi kii fal kee defal kii privilège def kii yooyu fekk mi ngi am indépendance la indépendance du am moo tax képp ku toogaat ci bopp réew mi te lijjantiwoo lii ah ci 6 mois maanaam 6 mois ba 3 mois lijjantiwoo genre yooyu affaire a parce que liggéey bi dëggantaan foofu lay tàmbalee mooy ku nekk indépendant mais mais Abdou Karim est-ce que justice bi moo indépendant wul wala sax politiciens yi ñoom ñoo bëgg jël euh, justice bi euh, bëgg a gëmloo nit ñi ne euh, justice bi indépendant wul parce que à chaque fois da ngay gis ne boo demee tribunal les gens sont jugés boo soxlawee li nga xam ne mooy ay këyit parce que justice moom nekkul ne carrément c'est juste pour fermer enfermer wala sax pour di juger nit à chaque fois da ngay gis ne aussi justice bi dafay def liggéey nu ko waxee Tchad wala ku mel ni comme euh, le président Ousmane Sonko. Mhm. à chaque fois bu amee changement si euh, li nga xam ne mooy euh, justice bi wala moom ay décision de justice dañuy ñëw di koy critiquer de manière ouverte tey est-ce que yéen nekku leen aussi sans ngeen rendre si compte di décrédibiliser seen ay pouvoir rawatina li nga xam ne mooy justice fii au Sénégal. ñoom ñoo décrédibiliser seen bopp bu ñu ko jiñ ñun def ñu lu dul éveiller conscience sénégalais yi. wax leen ñu xool bu baax ci ban état droit lañ nekk. Mhm. fàttali leen baax a baax la mooy suñu devoir ñun en tant que citoyen sénégalais en tant que activiste ñun peuple bi lañ fi nekkal ñun ay victime lañ ci justice bi ñaata yoon la ñu am ay problème ak justice fii ci yoo xamante ni amaana mën naa ñàkk man live laa def ñu fekk ma sama biir taxañ ma paxañ yóbbu pakate keroog laa gëj a sama waa kër loolu dafa am. mais xam nga xam naa la sa live bi loo fa wax. non c'est-à-dire lan la wax. Ibrahima Diack yi laa moom laa wax léegi Gaston Mbengue yi wax nii la c'est en fait loolu mooy problème bi euh, euh, euh, Ndiaye c'est man la ma utalee Gaston Mbengue man. wax waxuma ko Penda ay daggal man man c'est vrai man man man man man ruus naa taxaw di saaga. <laughs> man ruus naa di saaga ci tele wala may saaga ci ci ci ci loo xam ne ñaar ñett nit nañ ma dégg. Uh-huh. gàcce boobu ruus naa man loolu du ma ko def parce que mun ma prôné ay mun ma xeexal diine di saaga mais Penda Ba dafa noon saaga ay ndey xeetu lëmb après justice boobu yow nga ne ma léegi ñun ñoo koy dëkk justice boobu moom moo décriminalisé boppam moom moo moo wàccee boppam moo yàq der boppam mm-hmm. justice boobu moo wàccee boppam moom moo tax ba maanaam li ñu doon xaar ci justice parce que ñun gisuñ ko loolu la ñuy wax ñun loolu la ñuy kaas mais tey bu ñu gisee carrément le remplaçant du juge Sall. Mhm. Euh, à peine euh, installé ku mel comme Ousmane Sonko nga xam ne mën nañu wax ne euh, son affaire l' affaire agitar Ousmane Sonko ou bien l' affaire suite bi wuti moom moo ko hérité mu nekk un dossier brûlant boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne sax proposé nañ ko juge yu bëri mais ils ont préféré refuser parce que bon on est au Sénégal ñëpp ne leen dossier bi c' est un dossier assez mystique mhm. mais da nga gis ne aussi muy génn mel comme kuy artu wala. sax kuy euh, wax euh, juge bi naka la war a àtte aussi euh, sa sa dossier tey loolu est-ce que waruñu aussi remettre waat ñun ñëpp muy yow muy man muy keneen ak keneen ay question par rapport ñun suñ ay doxalin par rapport ak suñu ay homme de justice aussi. gis nga gis nga gis nga président su baaxul parce que nit ku nekk nu muy liggéey.